xam nga sëñ bi ni mu demee dëgg-dëgg mooy si bien ci mois de février bi moom am na loog moom rencontre du moom sax mais Souleymane Diop lay ba Souleymane Faye lay balan ak euh, le sous-préfet Omar Ndiaye ak euh, le représentant de l'AGEROUTE Cheikh Tidiane Thiam ak le maire Pape Gorgui ñu ngi ko defee ci mairie bu Pikine bi booba je pense président kii euh, imaam yi Pikine yëpp ñu nga conseillers yi ñu nga foon euh, directeur école yi ñu nga woon après ci la ñu présenté projet bii nga xam ne nii mooy euh, pont bi la ñuy defar fële ak oto pont bi ñu defar fii bim ñu waxee loolu nag xamal nu la ñu nekk yéen liggéey bi dina impacter seen foofu ngeen nekk ci première wax parce que man du ma wax man du fen lan nu waxal dëgg mooy yéen bu ñëwee da leen fay jëlee ci ci dara du leen jox dara parce que fa ngeen nekk du du du fu valable ñu ne waaye ñu ne xam na ne à titre précaire la mais vingt ans ñu nga fa tey lépp lu war ci ci nit ak ak commerçant ak ak ak dëkkam ak commune am ñu ngi koy def ñu koy fay ay patente ñu ngi koy fay du la war lépp ñu koy def. ban waxee noonu ñun suñu wàllu bopp bi ñu jëlee kàddu man ak le président Cheikh Fall moom dafa dafa dem Touba parce que biñ couvre-feu Touba la ko fekk booba léegi mënta ñëw bi ñu waxee ñun ñaar ñoo jël kàddu vraiment ñu remercier bu baax Pape Gorgui Ndong ndax li ñu ko remercier mooy dañ ko na ñun 25 ans def nañ ko foofu maire yi fa jaar yëpp kenn ku ci ne ñëw def sa kéem pour ñu faa jëlee kon ñom jim amal nañ seen yene ba wanal ko mais yalla dogalu ko mais yow biñ fi ñëwee ba nëgën nii wax deug yalla yàlla ko jim kon buñ démé nak ba projet bu toll non am di projet national parce que du ma wa waa Pikine doon parce que lool ñëpp la ñëpp njëriñal Sénégal gépp la bu lool amé lool jur police jur gendarmerie ñun bo ñëwee jur nga ànd kenn bo waaxoo ñëw ba ñun non eh fi kat señu dañ ko soxla jum bo boobaa na la may fofu sans problème ñun ñoko wax li ban ko waxé lool nak ci la retourné waat la cadeau daal wax sous préfet Omar Ndiaye ak le représentant du préfet Souleymane Faye ak way adjoint Cheikh Diane Cham ni leen ah man sama yaram dafa daw li mom duma ko sélante duma ko nangou parce que ñi ay responsabilité ay gor lan te xex bu ma sa a and nañ ci ak caag man te mosuñu ben jafé jafé ñu may ñu may jox seen i parents ñu may def lépp lu ma bëgg ci pigine ñu ma ci jappalé kon nak il faut que ñu changer affaire bi ban waxé lool mu man je m'engage di wutal leen ben site bo xamné dina la fa yobbu dal na préfet yeen yeen état faaw ngeen akom jappalé ma ci lool mom sax togn na le ne limay bañ nak moy ñu jog fi dem na Macky Sall euh, monsieur le maire day day day xeex sa projet demut nonu man ñom la bok mais askan la fi nekkal te ñii maak ñom ño nek kon dama bëgg ngeen jàppale ma ñu defaral leen fofu ci la Cheikh Tidiane cham moom itam wax na moy boy Azur wax na moom itam dina def le tout pour jàppale ko ci ci fonds yi mu am pour site boobu ñu ñu aménager ko defar ko ba baax ngeen dem Pape Gorgui nak nanu kon léegi man ngeen dem su ngeen demee. su ngeen liggéeyee ba ba yàlla dogal ñu trouvé site bi ba defar ko pare da ngeen di xëy jógee fii dugg fi moom moo wax loolu. te boobu Omar Ndiaye mu nga fa Souleymane Faye bi représenté préfet mu nga fa Cheikh Diam Tam Ajour mu nga fa directeur école yaa nga fa Notre Dame bi école ñoom ñëpp ñu nga fa ñoom ay témoins lañ ci li may wax. ba nu waxee loolu ñun ñu ñëw toog bi ñu ñëwee toog ba ba le 14 di la préfet ñëw indi fi ay sommation te lu jar sommation amu fi. ndax ñoom néewuñu duñ fi jóge ñoom ñoo wax ne maire maire moo ne dina créer benn site ñu dafa aménagé ko yóbbu leen fa comme nag ñun ay néew ju doole lan ñun xam ne ay néew doole lan mais na ci réew mi lan dëkk ci dëkk bi lan dëkk ay taalibe lan waaw mais nan nga mën a waxee nit na ko dina am fu ma la jox fa nga ko jox dem ba yàgg nga nee na nee na mënatu koo joxe te état moom fi ngi leen di jëlee ñu dëkk ci dëkk bi état moom fa mu leen war a jox amoo dara loolu wax lu ñëw taxaw na leen da ngeen fiy jóge da ngeen fi jóge très rapidement ñoo indi seen i indi seen i policier ñun duñ xeex ñoom parce que amuñu doole xeex ak ñoom mais nag yàlla doole rek rek moo ko te marché bi ragal naa ku ko bëgg a torox doo ko mën a toroxal ndax ay taalibe xaw ma fi kuy toog xaw ma kuy naan barke Serigne ma fi ko fi naan tey ñu ngi joxe ay addiya ñu ko war a joxe bët bi sot ñu jàng fi kaamil jàng fi ay xasida di dimbalante ah, nekk sécurité ci parce que am na ay gardien fi leen ba minuit taal ay lamp ci mbedd mi li mboolem ñoo ko liggéey à hauteur de huit millions huit millions et quelques ñun ñoo ko liggéey suñu xaalis def ay pôle ñoo ko def ñun mosuñoo wax feeñ ci leen leen ñoo ko def comme maire may nañu jàmm te ñoo bokk nekk te Pikine defar ñun ñëpp war a defar ñun ñëpp ñu bokk na ci nit ñëpp génn na ci àll bi suñu ñëpp na ci bi ñu xëy ñëw daal suñu kaw ne da ngeen di génn bagage bala ñu yàq ñun boo ñëw ci barab li yëkkati ay nit am ñu fa nekk ay responsable maire bi moom fii moom mu moom mu yilif moom moom muy dogal moom mu nekk jiite euh, déguerpissement bi ba mu waxee waroon naa bàyyi presse jox maire mu wax jox représentant marché mu wax mais defuñu loolu c'est parce que kon daa mel ni ñoom dañoo préparé seen coup ñu wax lu leen neex ñu wax question yi wax am benn bu ci bu parce que moom bi mu ne bi mu am na fenn fu leen jox pourquoi pas journaliste bi laaj ñu ko ne ko fan nga leen jox na ko wax du wax barke Cheikh Ahmed Bamba du ko wax parce que amul. moom nee na moom ñëwul ànd moom ci lan mo moo yàqatu ñëw dafa war a ñëw mo bu ñew ne fi la dugal mais ñom kenn ci ñom du la wax ne fi la na dugal kenn ci ñom du la wax ne jox na la ben deureum amul amul amul ben commission amul waye nak sëñ bi ñun ci rew mi lan dëkk Macky Sall nak li ñuy def defarul ko dañ ko yàqal ndax ñun toju ñun toju ñu ay baaraw ñu ay tali ñun laaju ñu dara ñun dañuy contribuer ci dëkk bi mais amul dara lu fi yàq même bi Covid 19 bi bimu ñewé bu leen neexee ngeen dem laaj mairie premier acte ban fa jëkk a ñun ñoo ko fa posé ñun ñoo fa yóbbu suñu suñu seen antiseptique te même jour bi ñu ñun noo dem yóbbu ko fa kon ñun lépp lu war lépp lu war ci dëkk bi ñun ñu ngi koy def kon ñu ngi koy def kon nag Macky Sall moom bu bu seetaanee ñoom ñu def ñu nii ñu def ñu nii dina xam ne ay gor la ko seqal ay taal la ko seqal taal bi suñu Tuubaa la kenn ku Sëñ Tuubaa